moom Jaafar moom Jaafar mu ŋànk drapeau bi ñaari loxo yëpp a ngi dagg mu ŋànk ko ni feek maa ngi ànd ak sama roo drapeau l'islam bi du daam mu ŋànk ko ñu corbaat yàlla ni malaaka yi jël leen plateau wu bi ngeen tegal ma ci ruuxu Jaafar bi indi ko ci man directement parce que ruux bu bàyyeekoo àddina dafay dem alamul arwaax su demee alamul arwaax dafay jaar bërzax bërzax mooy intermédiaire u àddina ak alaaxira lu tax muy jaar bërzax comme ruux bi muy ñëw dafa setoon te buy war a delluwaat dafa war a set moo tax ñu di ko yóbbu barzax buñ ko xoolee tilimul ñu bàyyi ko mu dem alamul arwaax mais suñ ko xoolee mu tilim nag ñu fóot ko xaaj mbëgg ñu bi mu génnee yàlla moo jël plateau wu or di malaaka leen ma ci ruuxu jaafar fii indil ma ko directement ñu indi ko yàlla ni ko wax ma loo gën a bëgg rek ma defal la ko. moom Jafar. moom ruux bi mu ni ko wax ma loo gën a bëgg ma defal la ko mu ni ko li ma gën a bëgg. mu ni ko waaw mu ne ko nga delloo ma ca yaram may xareel yonent bi ba sa baat taxaw. allahu te booba façon aljanna bu mu ko wax mu jox ko. waaye kooku bëggul reposer parce que li mu tàmm mooy service li mu bëgg mooy service yàlla ni ku warta jaaxle jaaxle na ndax mag su taxawee wax ni nii nangam nii laa koy defee nangam nii laa koy defee bu ko defewul na mu ko waxe woon ñu ni waxam dañ na te maa waxoon ni ñaari façon rey laay reyee kii ma rey ci nelaw dinaa ko delloo ruuxam mu jóg dem mais kii ma rey ci dee nag dama koy téye du dellu te comme dee na mënut su ma ko delloowaatee ci yaram ba ah, mu doon leneen tëliwu ko nag waaye dadul weddi boppam waaye am na solution mu ni ko comme nag loolu nga taamu mu daal di ne malaaka yi ñaari loxoom yi ñu dagoon saxal leen ci ay laaf ñu saxal ci ay laaf mu ni mu ne ko ànd leen ak ànd leen ak jaafar nag ngeen di dox sama mission moo tax jaafar di nit ba pare yor ay laaf di ànd ak malaaka yi di naaw ci service boobu lay continuer ba yowmal qiyam mu soog a dem mu soog a dem aljana moo tax yonent bi salaa sallam daf daan toog saxaaba yi wër ko mu jékki-jékki ba yàgg daal di siggi dal di ne ko wa salaam yaa jaafar daal di ni jaafar jaar na fi léegi ànd ak malaaka yi nuyu na ma nuyu na leen fay leen ko waaw ñu daal di ne ko wa aleyka salaam mais nit koo xam ni da jël sa lépp dox ko jox ko islaam di ci dox ah, ba faatu ci champ boobu soo faatoo noonu lañ ci ci ci ci ci Jaafar lañ lay affecté